mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di ànd ak yéen vous êtes nag moom mooy seen télévision Futur Média mbokk yi nag ki nekk ci euh, réalisation bi di ingénieur Pierre de Silva moom nag moom moo jiitu li nga xam ne nag moom mooy réalisation bi Pierre bi nga xam ne nag ñu koy wax félicitation xam naa ne nag comme que Guinée Bissau am nañ président bu bees moom ca boppam mën naa dem ndax Guinée Bissau <laughs> am na loo xam ne léegi xoolal lu ma neex wax ci télé bi benn boo xam ne léegi <laughs> waaye eh, Pierre dafa dem di ute passeport ñu ne ko doo sénégalais wu yaay <laughs> mais booy wuy ma non loolu moom laay tëjee quoi loolu du ma léegi dama ne Pierre moo nekk ci réalisation bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci régie bi dalee ko ci Babacar ingénieur ak toog ingénieur ñoom am ñu ngi leen di ziar di ingénieur bu mag waaye tamit di nuyu xam ne ñoo nekk ci euh, jigéen ñi ku ci mel ne madame Guissé ñu koy nuyu di ingénieur bu mag ak mademoiselle Diaz nekk foofu caat ci ingénieur yi ñuy nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Aliou ak képp koo xam ne yaa ngi ci régie bi di vieux Diouf ingénieur waaye di am mbégte contentement ci stagiaires yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw yëpp yëpp yëpp bu ñu wàccee suuf ñuy nuyu bu baax ki nga xam ne la grande maquilleuse di ci nag teg ki xam ne mooy Ablaye Ndiaye di nuyu tamit quoi si Laari Samb Roxay Samb di am mbégte contentement ci Atoumane nga xam ne nag mu fii ci Télé Futurs di am mbégte tamit bu mag ci ki nga xam ne moom mooy Kara nekk sécurité waay tamit euh, ñuy nuyu bu baax ki nga xam ne moom mooy Anna Salvidar ñëw tey seetaan si émission Kouthia Show en direct am naa la ñoom jeewoon nañ waaye léegi mbégte ak contentement yëpp dana dem léegi mbokk yi li ñuy bi mu ngi nii xool sa Seck tey waxati na moo moom Mimi Touré daal temps li nga xam ne mooy journaux yi Idrissa Seck nee na Mimi Touré man du ma sa morom waxuma ak yow sa kilifa laay waxal bu fekkee sa kilifa mën na tontu mu tontu mais yow du ma tontu rek yow di dàggasante ak yow ki nga xam ne mooy Mimi Touré nee moom tamit du dàggasante ak ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck moom politique waxugu ci dara dàggasante bi ca liggéey bi la waaye moom demb ba mu demee ci euh, fi nga xam ne mooy Pikine Est projet yi dégg nañ fa ay yuuxu waaye ak ka yuuxoon na libéré Kamerun Wade foofu ca woon mais bu démb Pikine Est waaja tamit toppaat na ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré te ndulli yi nga xam ne nañ ko woon waa jooju la moom en personne mooy ñëwaat am ko bëggee xam toppale ñu Ablaye Wade nag moom waa Jeune Afrique ñoo ko bindal ne dañ koo na nga woote comité directeur pour a plainte ñi nga xam ne mooy journal Jeune Afrique Karim Wade ca seen sommaire léegi nag <laughs> ah xaaral waaye mais wulal ma mais ndeke de Pierre de Silva bi mu nekkee Pierre de Silva ba tey am carte carte d'identité sénégalais yaa ngi dégg di voter élection di non di nekk sénégalais lu xoolal lu sénégalais am rek Pierre am na papier yooyu mais mu tey lay soo ko dem pour passeport mu dem dëgg <laughs> waa ñu ne ko doo sénégalais <laughs> booy Pierre gën a carte ñu ne ko doo sénégalais léegi Macky Sall man am naa lu ma leer na Pierre voté na xaw ma kan la voté bu dee yow la voté am nga moins <laughs> mais léegi Pierre yow yàgg nañ la fay ñun waa Sénégal suñu xaalis nga koy lekk te dagguñu la impôt léegi comme que doo sénégalais non liñ la daggoon impôt yëpp nañ la ko delloo non c'est vrai parce que Pierre bu nu nekk fii war a passeport ñu ne ko doo sénégalais Pierre da Silva léegi non non non mais lii grave léegi ñu sant ñu sant da Silva yëpp dañu taxaw def benn marche na ñoom da Silva sénégalais war a sénégalais mais loolu il faut mu leer <laughs> waaye man tey sa tollu ma xuloo xaar ma xool sama waa sama waa daal vraiment aya ah, allo eh Youssou waaw da nga def da nga am problème yi ban match ah, yaa ngi Gabon eh waay grand waaw mais grand gis naa lettre bi vraiment kontaan naa ci lettre bi daj naa ko macha allah gis naa lettre bi gis naa lettre bi <laughs> gis naa letre bi gis naa lettre bi. non non non mais grand man lettre laa gis gis naa lettre bi mais kontaan gis naa lettre bi non non non non grand bi gis naa ko waaye nuyul ma madame waa ana waa passe ma ko waaw waa mais madame non non non gis naa letre bi dégg naa yaa jënd enveloppe bi grand bi mu jël lettre bi dugal ci biir <laughs> gis naa enveloppe ak lettre mais enveloppe bu dugal ci lettre laa gis <laughs> ñu daan koy agraf bi ma ko teppee en direct mais ñëpp gis nañu enveloppe bi ak lettre bi <laughs> waaye Youssou yàlla yàlla teg ci yoonu waaye mais grand ku baax nga temps pen mooy woo ma ne ko amatuma seen jot même démb baaba maa naan ma grand ndax sa ma ne ko baaba xoolal man sama patron jubóo na yàlla coon sekk tamit ñoom ñoom ñëpp bàyyi naa leen mais grand lettre laa gis quoi waaw lettre la lettre kese la waaw ah lettre la naa gis de xaw la ci nekk wala